liberté 1 ñu fekk fi waa ji sëgg ci ay bant ak i contreplaqué di ci liggéey moom mi di wuyoo ci turu Alexandre Montero di defarkatu kees yi nga xam ne moom la ñuy denc ñii di néewu katolik yi bile liggéey nag mu ciy daan dooleem di ci suturloo ginnaaw ba mu ko doonee ci waajuram bu góor. sama papa moom la doon liggéey après bon bi ma jàng ci laa ci dugg nag. bañ toog bañ a def dara ma ne bon xaar ma dugg ci xool après nu ma ci duggee nag ma gis ci euh, avantage bu rëy parce que bon tey ba tey ni moom rëccuwuma ko moom. mu nekk menuisier en bois duñu xamal jumtukaay yi nga xam ne moom lay jëfandikoo ngir rek defar yi les kees. matière première bi fii laa koy jëndee ci sama euh, revendeur yi ñii di jaay contre yi fii ak bois. foofu laay jënd contreplaqué bi ak contreplaqué lañ koy defar quoi. d'habitude ay contre contreplaqué la boo xoolee contreplaqué 15 lañ koy defaree après yoo xam ne am na bu dee tout blanc bi nii dañ koy yóbbu bu ñu ko defaree yëpp ñu yóbbu ko ñu lakkeel ñu ko. am na beneen modèle bi mooy bii xaw a xonk noonu boobu ñu ñu après bu ñu ko defaree dañ koy plaqué yëpp mu am couleur rouge bi noonu. liggéey bi nag di taxaw yenn saay ndax ñàkk client waaye depuis bi mbas bi duggee ak léegi rek. li mu nemmeeku rek moo di demande bi dafa gën a yokk ba sax di ko ëpp loxo. bon pratiquement chrétien yi kese la ko bon am na bi Covid bi commencé bon tout dernièrement su ma ne wax période bu mu gën a bëre mooy mois de janvier bi bi moom lu ñu amoon ci ay commandes moom c'était exceptionnel bon d'habitude ñun sans Covid bi bi ñu daan defar ay quatre cercueils wala trois la nga daan defar ci weer bi mais Covid bi bu mu ñëwee surtout mois de janvier bi dem nañ benn moment. dafa am sept cercueils par semaine entre lundi ba samedi moom léeg-léeg sax yaay bañ jël yenn commande yi mais dafa dafa am na jour yoo xamante semaine yoo xamante ne defar nañu six ba sept cercueils bon mun naa bañ wax tamit jaral yu bëri bëri bon benn période la ko mais en temps normal di nga toog des fois une semaine doo defar ah bon tout comme mun nga toog ci benn semaine nga defar ñaar ñett comme temps yi nii affaire yi xaw na wàññeeku ay trois deux la ñuy defar wute nag mois de janvier bi quoi. moom Alexandre yemul nag ci defar sër kay kese ginnaaw ba mu ci boolee meuble yi ak jumtukaay yi nga xam ne dañ koy faral di utiliser ci kër yi. dinañ defar lépp loo xam ne concert concerne euh, na euh, boiserie ah dinañ defar comme bon cercueil yi meuble salon nañ koy defar ay meuble de yoo xam ne day dem ci kër daal cuisine comme cuisine importée moom moo gën a faral sax moo gën a bëri fan yi li may defar sax euh, que ay cercueil yi cuisine comme cuisine importée yi dañ koy defar ay chambre à coucher aussi dañ koy defar lépp loo xam ne domaine u bois la quoi dañ koy defar aussi. mu ñuy xamal njëg bi muy jaaye yi lekkees nag mi ngi dépendre rek ci modèle bi nga xam ne moom la client bi soxla. bu dee bu weex bi weex bi moo gën a cher boobu ñu ngi koy defaree deux trois cent deux cent soixante quinze. bu dee bu vernis bi ay deux cent cinquante mille. souvent dama leen di laaj euh, taille bi nekk ci pièce d'identité bi suñ ma joxee pla euh, taille bi selon taille bi après man maay xool nu ma koy def rek ndax njëkk yi dafa tuuti ndax dafa am yaram yooyu yëpp dañ koy laajte aussi après ñu nag ñun après loolu ñun ñooy teg suñu dimension bu ñu joxee taille boobu nag ñun ñu yokk ci tuuti parce que bon taille doo ci kii tout le temps parce que ci pièce d'identité mun na am erreur wala kii moo tax dañuy ci loolu ko liggéey bi mu koy amal ci anam bu mucc ayib ngir rek taaral li nga xam ne moo di yile cercueil. pare dañ koy habillé ci biir yëpp capitonné ko après utal ko coussin yooyu yëpp dañ koy kii ba mu baax mooy comme photo yi mu la woon noonu après noonu lay mel intérieur bi. après ci côté yi mu am poignée yi dessus bi mu am croix en bois bi ak beneen croix crucifix bi ñuy fixé.